bii mooy sixième édition bi ñu koy def donc di wax que ne Mbacké chaque fois centre day yokku donc dañ doon am ay six centres fi mu nekk nii ren sept centres lañ am mais yàlla suturaal nañu comme ni ñu ko daan defee chaque fois nekkul xaalis boo xam ne ñun dañ ko teg à côté di ko jël di ko utiliser wala mu nekk benn fonds bu ñu kenn di jox donc xam ne dañ koy teg heure bu ñu ko soxlaa dem jël ko donc dafay nekk ay bonne volonté donc en commençant par les seen weccat bi ñu am pour ñu mën ci jox suñu rakk yi nga xam ne dañuy def bac fii ci Mbàkke ci cette santé ji dem fekk leen fa jox leen ñu lekk donc loolu la nga xam ne dañ koy def juróom-ñaari at chaque année nag donc dañ ci am ay ndimbal yu am solo solo solo ren ñu am ci ndimbal boo xamante ni donc comme ni ma koy waxee rek dañuy toog rek lépp di di di di sotti ndax lépp lu ñun Serigne Touba rek la yaakaar te à chaque fois moom la ñu koy sas donc ñu am benn sëtam bu ñu naan Galas Kaltoom aussi ren boo ko xoolee li si ëpp ci bag bi majorité bi yëpp moom moo ko jël donc def ci alalam donc ba pare ñëw aussi demaat ci centre yi pour remercier élèves yi candidats yi donc ak ku xam ne ku mel ne dage bi nga xamante ni mooy Ami Mbacké donc nga xam ne da ciy def alalam chaque année daaw laa ko wax mu commencé ko ren aussi tam tam mu def sa participation ak yeneen kilifa yi nga xamante ni dañ ciy jàpp te mënuñ leen a lim ñoom ñëpp mais si am solo daal te nekk spécialité bi mooy que ne bac bi mi ngi jaar si jàmm fii ci département de Mbacké donc comme ni ko waxee gis nañ président de jury si bari mais ma macha allah alhamdulilah donc affaire bi xale aussi añ bi. nekkul ay añu falaa falaa aussi parce que dañuy rey nag chaque jour donc te nag boobu moom la ñu séddalee chaque fois danañ togg chaque jour 10 mbana mbana yi yëpp moom la ñu jël ci centre yi ñu yóbbu leen ko am na centre yoo xam ne deux jours yi lay doon ñu yóbbu fa ñaari mbana wala ñaari mbana euh, genn wàll euh, à peu près ay 3000 et poussière 3500 3000 et quelques euh, candidats la. Mhm. su ñu xamul amul ay absence wala ay ñoo xamante ni. donc dañuy jëlaale aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkaale les surveillants. ak ñi nga xam ne ñoo nekk dans l' administration. Mhm. kon dañuy wax ne kon ñëpp la ñu couvriraale ci bac bi daal. Mhm. touche nouvelle bi déjà je crois que ne amul touche nouvelle ah amul touche nouvelle li si am solo la defoon rek la defaat mais comme si jàppale bi si la am une touche nouvelle donc parce que daa amoon nañ benn touche nouvelle ren aussi amaan donc cette année ci nga xam ne ñoom defuñu ko pour politique parce que ku mel ne Serigne Gallas ak Soxna Ami chaque année dañ ciy jàpp di ci dugal seen loxo mais ren euh, mhm. dañ ciy gën a dugalaat seen loxo. kon a dem ba. non ñun moom fekk yàlla mu ngi ñu koy may parce que xam nga nekkuñu ay jeunes yoo xamante comme ni ma ko doon waxee rek conseils communaux yi yi ci Sénégal yëpp boo ko xoolee politique lañ koy defee ce sont des postes yi nga xam ne ce sont des postes apolitiques donc ay postes la xam ne c'est a amal njariñ moom la ñuy def pare si mais bëgg nañ aussi bu ñu yàlla mayee leneen chaque année ñu koy def donc ak kii aussi amaan nañ beneen nouvelle bu bees parce que sëriñ bi sëriñ Galas wax na ne moom su ko yàlla mënalee chaque année dina ko jël en charge kon mu nekk loo xamante ni aussi donc euh, nekk na loo xam ne ni kon day nekk à l'éternité fekk suñu borom mi may ñuy noyyi waaw le montant budget bi déjà de mënoo ko calculer net ne lii la parce que lu ñu jàppoon na sax rayon 2 mu nga xam on l'a acheté à 400 000 francs donc dañu jàppoon ne déjà de un dinañ ko mën a def tey ak suba mais nag bi yëpp ci benn journée bi la des donc di la wax que ne mënoo ko estimer à 100 pour cent daal donc mais à chaque fois nag danañ fexe ba satisfaire le maximum d'élèves. c'est combien de jours. waaw deux jours parce que troisième jour bi déjà oral yi la daan doon et tout cela on n'a pas besoin parce que heure heure bi day teel a fekk ñoom ñu wàcc élèves yi dem et tout cela administration fexe leen toggal yóbbu leen ñoom ñu pour l' administration bi fi des quoi mais pour les élèves heure bi day fekk ñoom ñu décanté quoi. tey ànd nañu ak le président du conseil de la jeunesse Serigne May ci li nga xamante ni bi activité la bu mu bu muy perpétuer depuis lu yàgg euh, examen bu jubsee day ànd ak euh, ay mbokkam ay xaritam ku nekk jàppale ko ci lim mën. pour que mu mun a restaurer euh, xale yi nga xamante ni bii dañuy def examen ni ma ko waxee sànq ci français xale yi fu nekk la ñuy jóge euh, delluwaat ci seeni kër añuy ñëwaat dafa du yomb am na ci ñoo xam ne aussi toog ci école bi jënde fii lu ñu lekk tamit nekkul lu ñëpp mën donc ñu ànd organiser wu fekk xale yi fi ñu nekk euh, togg jox leen ñu mën a lekk mën a delluwaat ci classe yi concentré wu Euh, loolu lu ñuy saluer la mais rencontré waale nañ aussi le ko professoral bi nga xamante ne bii ñoo fi nekk di organiser examen yi pour xool ci conditions yi ñu koy defee en tant que administration bi ñu bokk mais doomu dëkk bi donc euh, li ñu seetlu tamit mooy examen yi mi ngi jaar ci yoon amul dara loo xam ne signalé nañ ko ci loo xamante ne bi awul yoon loo tamit ñi koy santé organisateurs yi euh, l'office du bac ak ñëpp ñi nga xamante ne bi ñi ngi tourner autour des de l'examen du bac politicienne bi euh, action de développement yi ni ma koy waxee tout temps tamit samay waxtaan man lépp loo xamante ne bi jàng la ak formation jàng ak jàngale dama dama ci dugal sama loxo euh, du doon dara nag ak euh, politique bi may def mais dama gëm ne dëkk bi dañ ko war a tabax te mënuñ ko tabax lu dul dañoo jàngal xale yi former leen loolu nag moo tax fépp foo xamante ne bi ñu ngi fay wax lu jëm ci jàng dama fay teg sama tànk damay fexe sama itte mate ko ma dem bokk ak ñoom sama doole sama alal ak sama xam pour que ëllëg ñun fi ñu nekk xale yi ñëw mun ñu fa remplacer dignement pour que construction Sénégal bi nga xamante ne bii ci la ñu nekk mu mun a mun a jëm kanam.